diggante ak yàlla nabi sallallahu alayhi wa sallam mu fa yéex a ñëwal mu fa yéex a ñëw ndax Jaafar ibn Abi Talib moom Sidna Ali ibn Abi Talib dégg nga ak Abu Talib ñoo bokk baay Ali moo ci gën a tuuti Ali gën Jaafar Talib Talib magana Jaafar fukki at Jaafar magana Ali fukki at kon ñooñu weesu nañu bokk jamono.
Abdullah ibn Mas'ud.
Abdullah ibn Mas'ud moom ca ñu njëkk a tuub la bokk dama yàlla baal ñu si tuuti la woon moo tax am yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ñu ñëwee di wër Kaaba gi te nit ñi bari di boo xam te mu ne Alioune Abdullah ibn Mas'ud Alioune bàyyi na nit ñi wër nga soog a wër ibn Mas'ud bàyyi na nit ñi wër nga soog a wër lu tax Alioune dafa amoon kàttan ñu ne ko da ngay boo nit ñi gaañ leen ibn Mas'ud ñu ne ko dafa tuuti loolu ñëw kàttan dañ lay gaañ
Seydou Moussa ñooñu ñooy suñu mbokk jamono Seydou Moussa.
زيد بن حارثة فما قضيت منها وطرا زوجناكها لكي لا يكن على المؤمنين حرج في أزواج عيالهم إذا قضيت منه وطرا فكان أمر الله مفعولا جميعكم أمر الجحود soxna soosu nga xam ne moo doon boobu bàjjenu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu di Zeynab bint Jahsh Alquran dal na ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne suñu borom daf ko dugal affaire ne njaam esclavage nii war fi def nga xam ne kii maanaam daadam bu nekkoon jaar da ngay jàng daf dañ koy jàppee da ngay jàpp day yàq gën jàng te jaar yi niñ ko daan amee fii ku nekk xam ne ne jaaru ngi wan ndax ay dawal jàpp ak sàcc xale taal kër taal dëkk xale yi ko ko gëri nga sàcc dem jaayi naar yi naar yi def jàng wala nga jaayi nga dem jaayi américain yi ñu yóbbu leen jóge Amérique di dem bayloo nga tax suukar ak yooyu yëpp xam nga ne du jaar waaw jaar mooy ki nga xam ne dañ ko jullit yéefar yi ñoo dal ci kaw jullit ñi xeex ak ñoom jullit ñi bañ leen ba jàpp ci ay prisonniers de guerre léegi ñu tuddee rançon de guerre ba léegi dañ koy def ndax nation bi nga xam ne da nga dal ci kawam yóbbu ci ñoom temps bu bari yàq développement rek ci ñoom ay bakkan alal yu bari ak leen war nga koo fay yow di dal ci kawam ba di ko loolu l'islam nag dafa prévoir bu ñu yéefar yi tooñee ba ñu dal ci seen kaw buñ leen notee juróom ñetti suuf la am ilimaan bi mooy seet ba xam bu ci maslaha lislaam ak bu ci maslaha lislaam mu jëfandee booba mooy roy leen prisonnier de guerre daañu ko rey buñ seetee ba xam ne kii kàngam la ci yëf yi boo xam ne bu delloo na taalati beneen safara bu gën a garaaw yi te day bëgg a def mbooloo yu réew yu bari ñu ñëw ci soxla jullit ñi xam ne kenn mënul mucc ci moom lu dul rey ko yàq ci lislaam yàq boo xam ne kenn mënu koo xalaat daal saaga yonente bi sallallahu alayhi wasallam di yàq woor bu mu wooree muy mu koy firi di dindi di wax leneen kooku nga xam ne rey ci gën dinañ ko bañ a rey bi rey ko almaam bu ñu seetee ne ñii bari nañ leen waaye seytaan yi leen nax mën na leen a jéggal amuñu ngaañ ñu bàyyi ci kenn du leen laaj rek wala fidiya da ngeen joxe rançon kan ko jëf nga joxe nangam ñu nekkoon ci bagal wala jizya léegi kat sooy génn buñ leen mën a contrôler te l'islam kat du xeex mukk ngir tuubloo dafay xeex ngir défendre boppam ndax fi ñu jaar ba ak ci ñu am ndigal xare xam ngeen ko dañ leen njëkkoon ne qaatilu lazina yuqaatilunakum wala ta'tadu na ngeen xeex ñu leen attaqué waaye bu leen tooñ bu leen dal ci kaw keneen ba mujj gi ñu dem ba nga xam ne situation bi changé na ba nga xam ne gannaaw yëpp ñu toog fuñ toog ñu ngi fexe l'islam mu ne waqaatiluhum hatta la takuna fitnatun xeex leen ñoom ba nga xam ne dootu ñu fitnaal kenn ngir diine ba nga xam ne nit ñi daaw libre ci seen diine fu leen neex ñu mën ko xot professé nam leen neexe ku nekk di jàmm kenn ku nekk nga xam naa nga di joxe la nga diine leen bëgg a nga neex bu fekkente ne gis nañ ñu fee ah mënuñu leen a laaj bu ñu leen laajee dara fii njoxu rançon bu tee ñu nekk say pexe di fexe di fexe di dajalewaat pour dara ci suñ kaw nag pour nangoo si ñooñu dañ leen naan ak yéen da ngeen di fay maanaam impôt ak mu nekk nangam feeg ñu ngi koy fay nag ñu xam ne ñu ngi suñ soof suufu matériel te day ndax dañoo sori ba nga xam ne mënuñ leen a contrôler wala est-ce que pape moomu maanaam def leen jaam def di jaam comme liñ ci jublu dañoo sori xamuñu l'islam buñ xamoon l'islam dugg ci te dugg ci l'islam xéewal la bu ñoom boo xam ne tax ñu mucc ëllëg buñ leen jàppee nag indi leen ci biir jullit ñi comme jaam te njaam di ko dégg bu ngeen bu ngeen nekkee bu ñu nekkee njaam jaxasoo jullit ñi gis ni lislaam la fokk ñu tuub ndax lislaam moom bu ko bañee mooy ko xam waaye ko xam dugg ci te njaam bi da nga koy def muy sa mbokk sa frère yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na da nga koy li muy li ngay lekk nga koy jox muy lekk li ngay sol nga koy jox muy muy sol doo ko def liggéey bu mu àttanu ak li nga xam ne prisonnier de guerre la war na noonu buñ ko tëj ba bu kenn xamul bu la neexee ñu rey ko wala ñu tëj ko ba faw ñu da koy def rek sa bopp noonu te loolu itam mën na la juróomi istilwa yi benn bu ci nekk imaam yi seet ba xam ne ci war ñu def ko pour année ba tey ah bu ah ñoo bokk jamono wala.
waaw ñu bokk def waaw xamul kon dama yóbbu foofu am na ku ma doon wax de waaw Bilal.
kay tax waaw si na bi daal si na bi daal wax bi daal ci saxaaba yi mag yi la ñuy jiitu ci islam lu nekk wax nañ la ko li mu bëgg sonn.
yeneen loolu ay ay si biir ko wax amul biir ko wax amul si naa bi daal yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ñëpp dugal nañ seen mbokk ne leen amul ku gën kenn muy ku weex ci gënul ku ñuul ku ñuul gënul ku weex ku xonq gënul ku ñuul gënul ku weex ku ñu def ku jaune bi gënul kenn ci def ku gën sa morom daf ko gën a ragal yàlla loolu moom la wax te loolu jullit ñi xam nañ ko jëfe ko wax nga li ma indi woon ci loolu nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu bëggee dégg nga fay njàng njàng bi nga xam ne yow te juróom-ñaareelu maam bu nekkoon jàng ba léegi jàng ngay jàppee lu mel buñ ko boolee loolu wala mu jënd boppam muy def jàng rek fii ci Sénégal yi jàng ñuy wax ngir mu dindi lool ki nga xam ne jàngam la woon bi mu ko boreelee waaw te bi mu ko boreelee mu nekk gor ba xëy na nit ñi bi ñu nangoo may ko seen doom mu seet ki nga xam ne doomu bàjjen ba moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy Zeynab ñu ko jax nga xam ne moom moo ko yàq mu ngi ko jox ko ba mu koy jox ay histoire yu bari la woon bëri nañu dara yàlla su dogale moo ko yonentam benn jullit sañ la am dara mbokk ma moroon kii Seydou Mouhamed.
am na benn bopp boo xam ne moo doon opposé ci loolu bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam imposé na leen ko ñu ne pour léegi kon njaam nit ki buñ ko baalee yàlla wala mu jox jox boppam ci alal wala lu mu mën a def ba pare moom ñu ci defee mën nañ ko may seen doom mën nga leen may doom ñu dem ba loolu yëpp mu maasaloo kenn toppatu ko ñu gisee arab yi tam amoon nañu aada yu bëri yoo xam ne lislaam dafa ko war dindi ndax képp ku ci am sa jaam boo ko baagalaa dañ koy def ne sa dooma boo deewee def lay doon ni arab yi amee aada yi diw doomu diw mooy seen sant noonu la ñuy wax kooku dañ koy askanee di ko goreel ba Zayd moomu ibnu Muhammad lañ ko daan wax di ko askanee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu itam suñu borom bëgg koo dindi mu indi ci alquran suratul ahzab ba pour dindi loolu pour wane ne Muhammad du bàyyi Zayd ni alquran waxe ne ma kaana Muhammad aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa xaatama nabiyina Muhammad du bàyyi kenn ci yéen góor ñooñu la yorantu yàlla doon la ud'uuhum li aabaa'ihim huwa aqsatu 'inda Allaah fa in lam ta'lamu aabaa'ahum fa ixwaanukum fi diin ñii bu leen leen di woo woo leen seen baal bu leen bu leen ne Zayd ibnu Muhammad da ngeen di wax Zayd ibnu Haarisa bu ngeen bu ngeen xamul nag seen baal da ngeen xamul baal yi nga xam ne fay fa ixwaanukum fi diin ngeen xam ne seen mbokk la ci diine comme waaleykum kenn waxatul lu dul Zayd ibnu Haarisa mu des beneen gannaaw arab yi dañ ne woon itam kii bu dee sa jaam nga boreel ko ba tey sa doom la mu dellu si waat léegi defatuñ ko muy sa doom yàlla yàq na loolu dindi ne doon bi sa diggante moom ñu war a doon waaye buñ doon ci soxna loolu itam pour suñu borom dindi ko nit ki lu muy tere na ci jiitu yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam di ko suñu borom xamale ne Zayd moomu dafa war a fase Zaynab te yow yaa ko war a jël mu diis ci moom fokk mu def ko ndax yàlla ak ko digal li tax mu diis ci moom du ñun yàlla teg ko lu wax ñu def ko diisoo déedéet waaye li ko yàlla sas muy woote bi jëme ci lislaam pour def borom la yu ñaar yi ne Muhammad takk na jabaru doomam mu yàq lu bari ci borom xel yu manque yi mooy li nga xam ne moo peese ci xolam moo tax benn bis foofu mu arrêté xool yi maanaam historien yi histoire yu bari la ci raconté wax yoo xam ne dara amu ci ñeneen ñi wax loo xam ne noonu la demee waaye am na jenn jenn duñ si dafay guddi boo ko fi dee wax ndax li nga xam ne rek pour wax ne ñii seen naaj daal lépp loo xam ne danaa jëm ci xàjjale ko bindee fi alxuraan dig ne ko yonent bi dig ne ko la sun ba mu jeex bu tàkk ba dana des fi bi nga xam ne nag su borom xamal ne ne dana takk Zeynab benn bis yàlla dogal mu soxla Zey mi nga xam ne mooy jëkkëru Zeynab ñëw di ko seet si këram fekk ko fii Zey Zeynab muy rido bi waaye xoolal ko ñu ñëw moom yonent bi xool ko si dégg nga xam nga ne Zey nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne subhaana man yuqallibu al-qulub Zeynab xolam daal ci nekk ne yonent bi bëgg na ko te du war lool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom suñu borom may na ko ni ko ni ko Sayyidatuna Aïcha waxee wa am na ko am fenn ko seytaane mën a jaar amul dara loo xam ne du yoon lu mu am mën a am rëcc rëcc bu gën a tuuti waaye mission bi ñu ko chargé moo gis moom gis loo xam ne bi mu gisee kii Zeynab nga xam ne su mu fàttali ko xis bi xam ne dana ko takk te ci këram moom moo ko goree ak lan la ñuy wax mu tiitaat daal di tudd yàlla Zeynab bi tam suñu borom ci pour nar loolu am mu def ci xolam ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bëgg na ko mënatu la supporter Zeyd Zeyd ñëw toppatoo ba xam xabaar boobu mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dafay bàyyi kooku Zeyd bi mu ne ko téyel sa soxna sa nga ragal yàlla amsik alayka zawjaka wattaqillah alxuraan bi nekk loolu wa ittaqu llazina amala alayhi wa anamta alayhim amsik alayka zawjaka wattaqillah wa tuxfi fi nafsika ma laa mubdi wa taxsha nas wala an taxsha suñu borom yedd ko yedd bu bu bu métti ne ko li ngay wax ak ki nga xam ne yaa ko goreel suñu borom ak dogal goreel moo ko dëkk goreel nga goreel ko te yëg sa soxna te nga ragal yàlla nga nëbb ci sa xol loo xam ne yàlla dina ko feeñal yàlla daf ko fas yéene feeñal wa taxsha nas mais ragal nit ñi wala raxoon tax si te yàlla nga war a gën a ragal loolu xew yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am leen bu ko gën a diis ci àdduna kon ku ñëw asamaan si suuf si waaye xam ne lii ci borom borom moom lu mu mën a demee dana ko def Zeyd ñëw mu ne ko ragalal yàlla te nga téye sa soxna mu dellu seeti ne ko man daal dund ci ma ko amee mu ne ko ragalal yàlla te nga téye sa soxna ba muy ñetti yoon booba nag la ko suñu borom yàlla Zeyd daal ne ko wàcc naa ko mu des nag xanaa jël ko muy problème bi gën a diis problème yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm loolu am foofu nag historien yi nga xam ne bii jullit wax nañ fi lu nekk lu ñaaw te xalaat nañ ko ngir yàq xolu jullit lu ne loo xalaat loo xalaat loolu xaraam yàq nañ ko. ba nga ñu coow ni xanaa di jullit ñoom ñoom ñi nga xam ne xam nañu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi nga xam ne sax xamuñu diine xamuñu yàlla waaye xam nañu jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom xam nañu ne yëpp dara ci waaye nag tiis na léegi yonent bi dafa doon yoonal koo goreel. dootu la doon muy sa jàng nga goree ko du la doon sa nga takk soxnaam kenn du ko woo dàqantal ko ci yow ci la yooyee saxe kon bilaal fekk na yooyu yëpp bu mu daal am sax na ci xol jullit yi ba nga xam ne koor bi ku ci nekk xam nga ne bilaal saxaab bi bu mag la boo xam ne ku nekk yaakaar nga lu ñaan la sa ko ñu demaa saxaaba yi ay doomu aadama la yoo xam ne daana ci ñoom kenn ci ñoom daana ñaan kenn moom mu bañ ngir illa mu bañ ngir illa waaye illa lay doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Abu Bakar li ñu gën a fonk ñaan na ko Seydina Fatima mayu nga ko Seydina Omar noonu Seydina Omar bi nga xam ne bëgg na jox doomam Hafsa Seydina Usman Seydina Usman xaw a bañ ñëw jàmbat ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko Usman dana am ku gën sa doom sa doom dana am ku gën Usman loolu ku bokkal ah waaw loolu la ñu doon waaye ku gën Ousmane ak ku gën sama doom booba suñu borom dogal na ci xel na ko moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam na fab xam nga Roqaya ak Zeynab di ñaari doom yonent bi kenn ku ci nekk Seydina Ousmane def na ko waaw ku gën Seydina Abou Bakar Seydina Abou Bakar di yonent bi sallallahu alayhi wasallam jël doomam xanaa tam ku gën. ku gën Aboubacar xam ne doomu Ousmane doomu ah doomu kii Aboubacar ku gën Ousmane jël na doomu Aboubacar. waaw ki nga xam ne itam mooy doomu bi mu xam ne mooy Ousmane ci boppam moom itam ah kii am na gannaaw am na ku gën ñëw li ma ko waxee. doomu yàlla te doomu yàlla te bi sallallahu alayhi wasallam moo gën te mooy Fatima moom déedéet Roqiya waaw daan naa ne doomu yàlla te moo gën doomu Omar Omar itam. doomam am na ku gën Ousmane te mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga wér dëgg la kon ñoom bokk nañu jamono Sidna Bilal itam déedéet loolu ñu wax amul ndaxte benn bu fekkee nit ne ah li ma waxee misaale loolu ne am na ay illa yu tax nit nit ñi mën ñaan ko doon nit am na koo xam ne bañ loo ko sa dugg see ko ndax illa maanaam am na tax loolu mën na nekk waaye ñu bañ ko ngir meroon benn saxaab yi ñëwee benn saxaab yi ñëwee amul kenn ku ko ñëwee xalaat sala xalaat di ko jël historien yi nag dañuy raaf yu bari yoo xam ne dara ñu ci doon dëgg soo liggéeyee bindkat yi nga xam ne ñu ngi doon tuddee mustashriqoon maanaam les orientalistes yi nga xam ne duñu julli ñu ngi dëkk fii ci soow bi daal ñu ñu dëkk Amérique comme Washington Irving wala ñu dëkk Europe ñu fi Kayatani l'italien Casanova le professeur ñu bind Mohamed El Hassan di moom le espagnol bi dégg nga ñooñu ñëpp dañuy bind yoo xam ne Voltaire moo ci teel ci ay ñëpp li ñu bind boobu umpale na leen non seulement Moyen Âge mais umpale leen umpale leen Orient ñu ci bari xamuñu ko dañuy xoolee Orient ak seen bëti occidentaux loo xam ne bu doon ñoom ñoom ñoom la ñuy def ñuy daal di koy def loolu ñoom moo tax seen téere histoire yi bari na ci yoo xam ne ñoom seen bopp def nañ ko tous nañu ku ne seen naama ko bindoon ndax dem nañ ba xam-xam leer commencé war nañ ci umpale sax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam ba tur ñu xamuñu ko maa wënd lañ gannaaw maa wënd lañ defoon moom maa wënd liñ daal sax maa wënd maa wënd bu pour ñenn ñi loolu moo ne benn statue bu or la bu ñuy teg ci kaw ñey ñeyu xaalis boo xam dafa nekk ci benn tàmbal ci orient pour ñenn ñi Muhammad alayhi salaatu wasalaam cardinal la woon boo xam ne dafa déposé candidature pour nekk pape ñu évincé ko mu mel daal di nekk dissident boo indi secte secte boppam nga xam ne ko pour ñoom l'islam du diine boppam secte lañ ci biir christianisme réer yu bare bare wax nañ ko yoo xam ne yàq bopp ñi nga xam ne xamuñu ci la ñu waxee yu bare yoo xam ne yii ci islam dara xasewu ci dara taxtewu ci dara waaye ci ñu xam wala ñu xam histoire yi réer lu xewoon ci biir yow transposé ko léegi tey li wax boo jàngee histoire France le passage du Rhin le passage du Rhin defoon nañ ko miracle climat koo xam ne benn fleuve bu ñu waroon traversé ci xare amuñu ay gaal ñi dëkk ci boor yooyu xam ne am na lu ñuy wax flux ak reflux maanaam ak jësër wala madd ndox mi léeg-léeg day wobbu ba kii fii xóotoon du xóot fii amoon na ndox ndox mi daw na am na temps yoo xam ne bu jotee mu ngi ak ci weer wi bu jotee day gën a fees ñi nga xam ne xam nañu temps bi nga xam ne ci la ndox mi wàññi ko li ko toog dañ leen digal ñu jàppante ni jàpp kii jàpp kii kii jàpp kii kii jàpp kii ñu xuu ñu xuus jàppante ba jàll kii bi ñu teg ko kéemaan bi yàlla ñu dem nag ba dañ kon yont yàlla Moussa bi ñu wax ne dafa dóoreel bi ci géej gi mu xaar fan saaka fakkaan pour fekk kattoo bi àgg ni ñu ne dara xasawu ci du kéemaan du dara ñi nga xam ne ay atte yi gëmuñu yonent gëmuñu yàlla ñu ne booba ñi dëkkoon foofu baxru laxmar mooy baxru Kalsum mer rouge ñu ne dañoo ñooñu ñu dëkkoon foofu dañoo xamoon phénomène suñu adresse bi rek ñu jaar ci jamono boo xam ne jël nga ndox mi wow na ñoom fi aw na ak ñi mu amee di di koy fekk di def di feebar yooyu moo tax lépp loo xam ne rek ñu wax nañ ko dañuy sos loo xam ne lii waaye boo demee ba xam ba xam-xamee gëstu yëpp xam li ñu li ñu xam li ñu wax li tax ñu wax ko dañuy daal di xam lii dëgg ñu mën koo dindi ba mu set wecc asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh baax na
léegi ñu sélectionné seen ay ñetti laaj ndax seen i doom mooy lépp lu yemal ko fii ñu sélectionné ñetti laaj yoo xam ne ñetti gaal yi da koy laaj te laaj yu am solo ñu laaj ko ñu jeexal ndax waxtu yi seen la te toogaay di yàgg
joxal nga jox jox ko micro ñëwal xanaa li defoon a xam nag li laaj li jëm li ko laaj.
ñetti laaj lañ leen waaj waaw ñetti laaj ñetti laaj waaw waaw sëñ Baara mooy benn
asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh
Sëñ Sall baal naa mbooloo mi maa ngi leen di baal wax donc dina leen jox waaye lii dama ko xalaat ci sama xel mën naa ko laaj sëriñ bi ndax moom leeral na ko mbokk yi ma toogandoo itam bu ci jëriñee dañ ko ko jëriñoo te buñ ko waxee wax nit ñi yëpp ñu bokk ko wax. yaa ngi gën a mooy kii xàmmi nañu waxtu timis xàmmi nañu waxtu gee xàmmi nañu itam waxtu suba waaye nag tisbaar ak takkusaan xàmmi wuñu ko mbaa am na ñu ko ci xàmmi ñu am na ñu ko ci xàmmi ndax ñaarati montal yi la ñuy julli te fii dafa raw ak Sénégal léeg-léeg mu rawe ko ñaari waxtu léeg-léeg mu rawe ko benn waxtu kooku mooy dalil la nga baal na si dëgg ñaareel am na ci itam ci ñun xale yi ñoo xam ne ñu wax ne dañoo war a takk jamono tubaab ndax ñu am kay may laaj loolu ndax dagan na wala daganul wala war nañ ko def wala waruñu ko def ñu dee ñaareel yi am na ñu takk ba noppi ci am kay ndax wax ni jullit mën naa takk nee na liggéey ba ma doon jégalu dañ di leeral leeral leen de balaa dañ ko xool mu def jaar yaakaar ñoo ngi waaw waaw kon ñett la kontaan na ko sëñ bi ndax moo la bañ a la jërëjëf joxal joxal alaajam joxal alaajam
amul ci lu muy vraiment traité wallaahi bu doon tooyee dina ci dugg waaye dina ko weesu mu demee nag moom dafa bind ne tasaare waaw tasaare garab yi mamaa sama la waru dal alia li su amala ñetti daal yooyu bay gannaaw bu ma maa ngi ñaan loolu maa toon maa ngi ñaan ñëpp ñëpp ñëpp nañu teewal seen xol xam ne yàlla rek moo fi nekk ñu ñaan daay chambre yi mu gudd fan lool te yëpp ndax wax dëgg yàlla dafa mel ne que ni Cheikh Abdoulaye waxoon ñu dañu nekk ay ay bëri bo booy dem ci àll bi wuti booy nekk te booy yi ñu demee ci loolu parce que suñu bopp yi reere ñu baal sëñ Touba yore la am rek di woo woo sàmm pour bañ a def loolu bàyyi sàmm yi tabaarakallah yooyu yëgal lay jox tabaarakallah li ko yàlla may yàlla ñu ngi ci jëriñ bu baax a baax a baax mel na nag dafa fekkoon ci pour ñu xam ci ñu xam sabara mu yàgg na bañ a gis daal tout le temps loolu la ñuy jëm a jaar te dana am solo trop trop trop trop li ñuy wax ñu koy dogal ak dafa ne dafa am jot wala dafa am xam-xam am jot toog mu koy def am xam-xam toog mu koy def dafa xam li ñu yor lan la xam ci li ñu toog fan la mu bañ bokk stratégie daal xam sabara loolu dong la loolu war na koo jàpp xam ci day yor wala yàlla na ko xam yàlla na ko yàlla
waaw njëkk bi wax sëñ bi wax takkusaan moom lañ ko laaj baar takkusaan muy suba tisbaar waaye takkusaan daal moom léegi xam nañu ko ndax dañuy jël ci montre yi rek
asalaamaaleykum bisimilah waxtu yi waxtu lu mën a topp solo nit war a ittewoo la lépp lu muy julli ci waxtu xam ngeen ne ku julli lu jiitu waxtu moom julli nga du baax julli bi mën na paase sax nga fay ko nga xam ne duglul lii da ngaa fàtte nga doon wala nga doon nelaw wala nga toll ci situation boo xam ne kenn du fa julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne rufi'a an ummati al-xata'u wa nisyaan wa muxtubihu alayhi sama xel bi jéggal nañ leen lu ñu juum nga xam ne tey yëg duñ ko yëg xam lu ñu fàtte nga xam ne kon bu fekkee da nga fàtte julli ak lu mu mën a doon lu la ko fàtteloo nga xam ne su dugg yàlla da nga koo fàtte waxtu war ko fàttali ko rek da ko mën a def bu fekkee ne waxtu ba passé nag fay leen bu fekkee ne waxtu bi passé wul li ñuy wax joox joox mooy nga julli ko ci waxtu bi bokkul ak fay fay mooy waxtu bi passé nga soog koy def loolu doo ci am bàkkaar wama tukrihu alayhi loo xam ne mel na ca force léegi ku la doole te du la yéen boo këppee sa jëre ma dagg sa baat foofu nag ba tey aarifoona billaay ñoom bu leen tey julli buñ ko dee dagg buñ ko dul dagg waaye julli bi ñu nekk kese ñoom dañ leen a sant ñu sàmm seen roo sàmm seen bakkan sàmm seen alal dem na ci loolu ba boo duggee ci gaal xare am gaal gi ñu taal ko wala ñu boobaa dafa mu tàkk mu wër ne mënuloo fee soo daanoo ci géej gi da ngay lakk waaye mënuloo fee waaye bato baa ngi lakk mu wër ne fii mu nekk boo toogee xaar safara wi ñetti minute nga lakk dee boo soogoo mënuloo fee da ngay dee waaye da nga dundaat juróomi minute ñaari minute yooyu ci dolli ko waat na ci yow nga daal ci géej gi ngir sàmm kon bakkanu doomu aadama yàlla daf koo jëriñ sañu nit moo tax ku xaw nga xam ne yaa rey sa bopp tooñ nga yàlla tooñ yonent bi te boobu tuur mos nga ko réew ndax mooy ndax baaxaar bi ci gën a bon mooy bi nga mën ko def bi nga def dee nga xam ne doo ko mën a tuub te mooy xaral ndax nit ki bu fekkoon ne moomoom boppam bu xaroo yow kenn nekku ci waaye moomul boppam yàllaa ko moom loolu ñu gannaaw yooyu nag moom bu leen fekkee si julli mënu loo julli jéggal nañ la ko waaye sañu loo julli te jote ko dudul boole boole julli am na circonstance yoo xam ne da caay yoonal nga boole julli ne ki booy aj booy aj arafa nga boole ci barak takkusaan wala nga ragal nga am tawat yoo xam ne toujours bu balay takkusaan yi day fekk nga xam doo xam dara wala doo xam dara bu wóor la ne day ñëw nga julli tis nga ne ba mujj waxtu tisbaar nga julli tisbaar teg ci takkusaan fekk waxtu jotagul diggante yooyu moom may nga julli waxtu nag dafay loo xam ne lu jafe xam la yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na xadis bu ne dafa laaj si naa julli ne ko ndax tisbaar jot na mu ne ko jotagul jot na ni ko waaw loolu mooy la mu ne ko bi ma la waxee jotagul ak bi ma la nee jot na bu fekkoon ne dañuy xiyaas jant bi ñu xiyaas ko ci muy daw daan na daw na distance boo xam ne ci nit moom bu ko doon dox juróomi junni at wala lu mu mel ne loolu te kon bu fekkente ne dundu yoon yoonam nga xam ne may nañ la nga julli te jotagul ci circonstance yooyu wax léegi nga julli yow rek julli takkusaan ak tisbaar gis jullit bu ci nekk dafa am tawqiit boo xam ne ci astrologie parce que dañuy wax ne astronomie dafa xam astrologie xam-xamu ilmu nujum am na ci ulama yi ñu ko texe wax fi taalum nujum al haram dina ne Sidi Hadj Malick moo ko bind xam lu xam-xamu biddiw yi araam la boo seetee risaala loolu lañ ci wax waral dañ ci jublu jubluwoon ci astronomie astrologiste yi nga xam ne ci lay naan xew-xew sàngam dana am ndax li nga diir sàngam nekk na ci mën si na sàngam wala toll na ci nangam te loolu tracé yi muy def maanaam influence muy def ci suuf si day indi nangam ak nangam nga gëm loolu ba jàpp ne xam-xam la gën woo ko ci yàlla loolu moo tax ñu araamal ko day indi bokkaale ñu mel ne njaboot waaye xam lu ci waxtu yi moom lu war la boo seetee nag léegi jàkka yu bari ñoom am nañ ci toppatoo nañ loolu ba dañ koy faral di bind suba nangam waxtu nangam minute tisbaar nangam waxtu nangam minute takkusaan waxtu timis jot waxtu gee jot du nekk nag loo xam ne benn yoon rek noonu la nga xam ne bu nekk noonu ci waxtu boobu lay jot déedéet dañ ko day am changé mais yow mën a xam boo ko bëggee xam sax boo demee si jàkka yi daanaka daal yëpp def nañ ko ndax farata la après bi ci tegoon ci takk jabar ngir ay këyit waaw te ci ay këyit téere yi ndax am ay këyit ak tëkk yooyu farata dañ ko parce que léegi lan moom xam nga ko si moom contrat boo xam ne dee la jëm wala accident incident ñëw accident bu ko jëm maanaam mu mu tax moo tax ñu xaraamal li kaw mu aar li kaw mu aar mooy da ngay ñëw si réew ma dégg ma jàpp yoon damay soxna bu may wati say moom say moom waruloo ko sàkkal xaar boo ko sàkkalee après yoon xaraamal ne ko te ngay suy kaa xëy na dee wala yàlla ji nga sàkkal ko kon dañ koy gën a yëngal yëngal sama am na yëngal yu jullit mën a takk léegi naa leen dëkk bi nga laajoon nañ ko fa rek dëkk boobu te moom. moom it dama yaatale woon sax ci question bi ci statut yéefar yi xeeti yéefar yi ñu ngi tuddee ahlul kitaab nga xam ne ñooy ñoo am statut bi gën a kawe bu jëlee lislaam niki ñi nga xam ne dañu diine woon diine ñoo xam ne ca yàlla na ngi am yeneen dëkk yu niki yahudi yi wala nasaraan yi yahudi yi nga xam ne dañu ne Moussa lañ topp Moussa yonent la nasaraan yi nga xam ne dañ ne ay saa lañ tam ay saa yonent la fi nga xam ne fi lañ defee ay moo di ni ma waxee woon ni ma misaale woon ne yonent bi mu mel ne président réew bu foppi ko keneen taxaw nga ne du ma reconnaître que passé woon kër kam kii ñëw léegi que passé woon laaj reconnaître nekkuloo ci dara kenn ku ci nekk dafay mission bi ñeexee si moom dafa yónni keneen yónni ki nga xam ne ci rek yónni Moussa yónni woon nañ ko ci ay waaye duñ ñoo ne jeex nañ kenn yónni ko ci noonu Esa kenn yónni ko ci noonu ñun dañ ko yónni ci ñoom jeex na léegi moom la rek dañu def képp ku dina ku jaaru ci diine nekk na ci diine waaye ba tey gannaaw diine yooyu nangu nañ amul yàlla nangu ëllëg nangu àtte yamul xiyaam ñoo ëpp ñoo féete kaw statut yi fétichiste yi ak athée yi ak libre penseur yi les communistes ñeneen ñi nga xam ne ñooy yeneen philosophie yi ñooy léegi kon ñett ñooñu nga xam ne seen statut moo gën a jege bu jullit daganal nañ jullit bu góor takk soxna si bokk si ñoom li ko li tax ñu daganal ko it ak li jaamu qawwaamuuna ala nisaa bimaa faddala ba'dahum alaa ba'din seen ma anfaqu min amwaalihim dañoo ragal ne góor mooy ëpp force de caractère jigéen bi moo koy mën a yóbbaale yow miy jullit nga takk koo xam ne ahlul kitaab la nangu na ne lu bon bon nangu na ne yàlla am na nangu na yàlla yónni na ay yéen nangu na ne nit ki bu deewee am na gën a dund boo xam ne ëllëg la te nit ki daal ñoom seen ay jëfam ëllëg am na fu mu koy yóbbu bu baaxee am na fu mu koy yóbbu bu bonee loolu bokk na ngeen ko moo tax ñu daganal nga takk ko waaye dañuy yéene yow nga yóbbaale wala su amee doom nga yóbbaale doom ji mu topp sa yoon waaye bu fekkoon ne léegi jigéen ji yow yaay yow mi góor yaay yéefar bi jigéen ji di jullit bi du dara ndax toujours ku góor moo ko yóbbaale te mën na yóbbaale doom yi bu ko defee ñu topp bu dul islam bu ëllëgee ñu lakk bu fekkee nag léegi dama seet ne islam kat daganal la nga takk nga takk yow jullit bi chrétien bi wala juif bi waaye nag moo la moo la culture wala moo la ëpp alal fuuf wala moo la ëpp daal force dakar moo la gën a am fayda ba nga xam dina xëy na yow bu yóbbaale wala bu yóbbaale doom yi day daal di doon xatar boo xam ne dama garaaw day doon bon léegi kon jullit bu góor bi mën na takk chrétien muy catholique muy protestant muy jamono de Jéhovah muy ànd ñu ko mën a ñaan nit muy lu mu doon tey nasaraan ci biir yooyu rek mën na ko takk muy juif itam donc ba sett yi jeex gis na jullit bi ko nekk takk moom bu moom bu góor waaye ñooñu bu ñu dee góor ñu takk jigéen jullit boo xam ne jigéen la laaj bi ñu toppee dina jeex na waaw jeex na laaj bi sax bi jeex na itam daana waxtu salaat jot yi itam tontu nañ ko jëmale ak salaat xam leen wax léegi yëf yi du sawaay moo ci waaye est-ce que fois mooy mooy bi ñu ngi faat ñu tàmbalee ci benn ba ci ñeent ndax jullit bis dañu bëgg mu toxtal lu ñu bis bi toppaloon suba tisbaar takkusaan timis gee ci la yoon bi gën a xale ci lay topp itam dañ dañ dëgg ci islam bu fekkente ne léegi yësini xoir maanaam julli da nga faat julli yu néew yoo xam ne matul juróom wala nga faat julli yoo xam ne mat na fukk wala juróom-ñaar wala juróom-benn jullit bis bi gannaaw li ñu bëgg mu toftaloo nga dem ba jeejo wala timis julli woo suba julli woo tisbaar julli woo takkusaan da ngay tàmm léegi suba mu toftaloo ba nga ak si julli même bu fekkoon ne julli bi teew man dana faat boo boo jullee itam du tee mais nag timis xam nga timis dafa gaaw nii ndax ñooñu timis bu fekkee ne jàpp nga wala dem nga sa waan boor jàpp ñu nodd nga kàbbar julli boo sëlmalee rek waxtu tisbis bi maanaam waxtaan bi jeex na kon loolu lu gàtt la waaye bu fekkee ne julli woo suba wala julli woo tisbaar ak takkusaan rek wala suba muy ñett nga xam ne matul juróom même boo xam ne boo jullee yooyu nga fay ko bis bi dana la faral itam yooyu nga war a dem ba nopp baax si ci soog a julli bis bu ëppee ne julli bis maanaam juróom benn la jëm fukk da ngay julli julli ji teew ba noppi soog koy fay boo xasee ba fuy ëpp juróom yëpp nga xam ne ëpp na julli bi julli ji teew ngay julli ba noppi dégg nga kooku génn na yasiwul fois it moom ngay julli ba mu ba mu mat nga soog a fay la passé woon waaye bu fekkente ne ëpp julli bis bu waxtu bi doon mbéyit da nga koy toxtal tàmbalee ko ci suba sa rek ba mu nga yàgg si ci bii même bu fekkee ne passé nañ nga soog koo fay ba nga julli ko waaye bu ko ëppee nag bi teew ngay njëkk a julli soog commencé ci fay fay ya passé après
waaw
waaw bu dee sharia dañu jëfe de mënuñoo bokk ak ñoom julli ndax ki nga xam ne mu ngi ci guddi julleegul yow sa biir set jëpp ñu war a fenk nga bañ a julli doo ko mën doo ko mën naka noonu waxtu muy seen weer muy jëpp soog da nga ci tegaat yow nan nga muy heure soog a seen weer weeru mën na feeñ foofu te du feeñ fii am yoo àtte bi ñooñu ndax boo doon woor foofa bu fajar jotee rek jàpp nga jëf dana soo foofa ñu ñu ñu dog te yow yaa ngi si biir koor ndax yaa ngi si bëccëg te atte ci nga suñu borom tabaraka wa taala bu fekkoon ci ndef bëgg di jullit ñëpp di dogandoo di jàppandoo ci koor di julleendoo di koreendoo di tabaskiendoo mën na tànn kon calendrier solaire mois de janvier wala février wala mars avril mai juin mu ne weer sànq di leen ko woor adduna bépp koy woorandoo bu war a jotee adduna bépp koy woorandoo ñëpp xam nañ ko waaye suñu borom nëmbul loolu dafa nëmb jamono ji adduna bépp la tàmbalee sa penk ba ca sowu nit ñi toog topp nekk di julli rek ak di waar nga xam ne bu ñee jullee ba sëlmal ñee ñu ngay xaar julli wala ñu ngay ña ngay julli buñ ci jullee ñeneen na ngay julli ñeneen na ngay julli ñeneen na ngay julli bu dee koor toujours ñee ngi woor foofu bët ku am na ñuy woor loolu la ko suñu borom tëral waaw
ñoom nag léegi li ci lay xew ci biir réew yi Iran wala Irak.
waaw loolu la ñu bëgg lu baax.
dina ànd ak ñoom kon tey bu pare ànd ak waa Sénégal ñaareel ba itam da nga gis ci marocain yoo xam ni dañuy doon ñaari sept heures et quart. nga dañuy ah ci teel teel la ñuy doon ñu Maroc dox nañu ba dox.
réew mi parce que ñu ne fii duñu ay borom xam-xam ay nit dañu comme yéen ay modèles yi rek dégg nga li nga xam nag mooy li xew moo di yéen jullit ngeen da ngeen di takk toog ngeen topp toog juróom weer bu jotee ngeen am tànn ñu koy seet ñu am suñ koy seet ndax loolu kat islam teg na leen ko bu ngeen ko gisee dëkk sàngam dëkk sàngam mën ngeen a téléphonante dëkk yooyu ci xam ne ñoo bokk at rek bu ñu gisee weer yi xamal leen ko ngeen bu dee weeru koor ngeen um bu dee weeru koor ngeen xëyee lekk julli leneen li ci des li mu doon loo xam ne bokk ngeen ko at tax ay julli dañuy organiser waxam naa ci tàmbali bi ne moo di dañuy organiser seen seen i waxtu ak seen i jëf fi mu nekk communauté ngeen fi communauté communauté bi nag dañoo war a am ak takk toor ak jàppoo di organiser seen i nit di ko doxal na ngeen sàkk nit ñuy séenu wala ak ngeen koy séenoo fii am na géej am na montagne ngeen tànn ñu doy dëkk sàngam dëkk sàngam dëkk sàngam bu ko ci ñëpp séenoo ñoom mën nañ ko gis wala ñu gis wala bu ko ci kenn gisul ngeen xam ne yàlla tegu leen kat ngeen ëmb bu dee weeru koor bu dee weeru koor it yàlla sanatu leen ngeen wari ndax bisu koor it moom bisu ko les di woor ko arrangé loo gën naa ko ko woor loo ci am feebar dañ ci am bàkkaar ndax tere yàlla gis naa sama tere nag lu mu tere nag yëpp yëpp waaw jëf sëñ bi nga am na lu dégg nga loolu danaa ci loolu ndax itam ku amul xam-xam bu toll ne mën a yor jaram ci baax ndax dana ko rafet ak yoon.
moom waxoon naa ko ñoom naa bu la dee war a yóbbaale rek day daal di def naage ndax bu la ëppee culture wala nga bu la fulla wala nga bu la xaalis wala yooyu est-ce que la xasaata boo xam ne sa affaire bopp yaay seet waaw bu dee ci baax moom bari comme ni ma bëgg yow ba wax ko jëli ci baax ak ba wax ko jëli taatu baax man ma ko jëli baax.
ndax ñoo fekk da ngay lii suñu sëriñ bi. waaw lii suñu sëriñ bi moom mën a wax. waaw benn benn benn laaj. waaw benn benn laaj. waaw. ma xaar ma xaar ma xaar.
la chaise bi war a été par la révolution waaw waaw waaw laaj baax.
La consommation de la chair du corps est interdite par l'islam.
waaw.
Vous comprenez bien
waaw.
Ah, voilà. Yàqu mbaam araam na ci jullit l'islam lu mu araamal lu mu tere am na lu muy wàññi yàpp mbaam day lëndabal xol day wàññi gëm rabu àll yeeg rabu kër yi bu ci nekk am na lu suñu borom def ci moom benn muy lu baax benn muy lu bon lu baax li day ubbi xol jullit bi bëggloo ko yàlla wala bëggloo ko lislaam lu bon li daf ko koy sorilal di ko soppiloo lu koy lor sàngara ni muy gën a xelu nit ki ci zahir fi saasi na muy yàqe leer woo xam ne ko gën a garaaw mbaam ñëwa ci raw ko li ma wax ne ne muy lépp muy dund am na atte lislaam yi ca dox mooy mu aju ci secret te suñu borom def bu ñu seetee ne xaj bu xamee ci ndox dañ ko war a raxas juróom-ñaari ndox doole bonaayu xaj bee ndax xanaa sori at mbaam la gën a sib ci xaj xaj lekk ko di ko sib rek waaye mbaam dafa araam xaj dafa si dañ ko sib rek si biir waaw waaye araam xaj it mu doole dafa sobe ndax lépp luy dund laab na lépp luy dund laab na ñaqam taf li tam léppam lu dul sawam kabinet lu dal li ci yaram nit te nga xam ne dana naaj loola moom sobe la boo ko defee ci sa poos boo jullee lu bu dee bu paree dee bu dee ba noppi lu tax kon mbaam boo xamee ci ndab kenn du ko raxas juróom-ñaari ndox moom mbaam lu tax kenn du ko raxas juróom-ñaari ndox te xaj moom ñu di ko raxas juróom-ñaari ndox lu tax am na illa am na illa xaj bi itam su fekkee dafa ñëw xaj ci ndox mi dem jël soit xabaat dem jël soit xabaat bu muy junni yoon juróom-ñaari ndox rek lañ koy raxas duñ ko mel fukki junni xaj ñu ñëw xamaloo benn yoon ci ndab li benn juróom-ñaari yoon rek lañ koy raxas kenn am ci yeneen mbir yu ne ndox mi dina dañ ciy def
Baba. Baba. Baba waxal seen ndax taxawaay bi metti na. te sa waaw day laaj waaw waaw na ngaa bokk
am na ku jëfee seen nga defee moom mu yëngu.
maanaam jullit ñi nga xam ne dañuy am kéemaan ci nit ñi def talaf bi nit ñaa sax ci mënul si am. am na laaj yu ko jiite woon ci kër ci doon laaj yi ci kër ga ak yëpp. waaye nag laaj bi ci kër ga laaj loo xam ne waroon tàmbalee waaw te li waroon tàmbalee kee waroon tàmbalee leen tam laaj bi fii daanaka am na li ma doon wax doon ci jabar ko pour ñu tontu leen mais daanaka xabaar yi jamono kenn ku nekk na ci loolu kenn li nga xam ne taaral na wax ci say ci dund war nañ ñoom bu soobee ñu bàyyi ma xaaral bu posé question rek ñu yàlla ma ko bëgg na leen bu soobee bu ngeen baal wax bu baax a baax jamono bi moo xam ne moom jaw
ci aada xaj xaj xaj bi baax foofu.
alors que laaj doon maa ngi waaw loolu moom waaw loolu moom détail la boo xam ne moom ci waaw kenn naa ko waxee comme dafa xam rek yaa ngi léegi loolu dafa xam ñu bàyyi ma xam rek bu wax rek kenn ku ne li ñu ko wax rek ñu ko jëlee ñu ñaan yàlla sopp li ko am yi seen li ci nekkoon ak ñun ci waxtaan bi liñ ci wax lépp biiru li ci nekk bi ñun sunu borom dafa waxoon loo xam ne da koy dolli si ak dundam ndax loolu dana nekk sunu njëriñ te it mu dolli si ak yeneen ba ñu ne ci am xasaare rek am kenn ku ne kenn ku nekk man seen jërëjëf Ba la voilà. man damaa doon wax léegi jamono dafa doon wax ñu ngi leen science avancée ak ñu ngi technologie développé ba tax def ay jéego yu bari su ko defee ñu ngi ëpp lu ñu yëngu ci yàlla ci li mu may ñi nga xam ne dañu ko may ñu di ko wane pour toll ci ay climat nañu dem bay jël lu da ngay xam di ko doxal ci jigéen di ko ci leneen ngir mu doon ko sax wala ñu jël këru keneen wala ñu jël këru keneen defal ko keneen mu koy jëriñoo loolu dana ne dafay yokk dundal ak yeneen ak yeneen daal yoo xam ne bu tural nit mën na ko am kooku moo doon benn bu ñaareel bi moo doon léegi bu sëñ bi doon ñoom soxna yi daan leen may seen ñoom yónnee leen sàkku sëñ bi may leen seen yoo xam ne daf leen di waxtaane ci loo xam ne seen diggante ak seen borom dëgg acte yi nga xam ne moo leen di wax bu soxla yàlla sëñ bi dana leen ci leeral loo xam ne daan ci mën a ci gàttal mais loo xam ne ñoom daan ci mën a jëriñu ba beneen
ñu ngi ci wax ak technologie xam ngeen ne islam moom la ñu soxla wala ko ne al hikmatu baalati moo ñu nekk ay seen xam-xam boo xam njëriñ juddite ko moom moom bu ko réeree fu ko fekk na ko jël xam-xam nag xam-xamu science nag ak technologie yi nga xam ne ah fa ñoom la gën a développé ci ñoo xam ne ay jullit lañu ndax science diine xaasal na ko jullit boo xam ne dafay yëpp ndax dafa am situation bu islam di considéré te science ak scientifique yi considéré ñu ko mu di war may doomu aadama ko yàlla may am ci lu ñuy jëfandikoo ci doomu aadama yoo xam ne islam loolu ko xam ngeen ni léegi daanaka doomu aadama dañ ko fàtte pièce de raison rek yax nit ki ñu dem togg ko réel ko liggéey ba nga xam ne dañ ci mën a def yax bu nekk jox ko forme ba bu nit ki manqué yax boobu bi dalee ko koy remplacé pëñ yi naan pëñ yi buñ la ko tiimee poison la ko doo xam ci lan lañ ko jëlee nit ki boo xamee ne mu ngi defee te xolam am ay ñu gis koo xam ne bii xolam mucc na amul ay te mën a sowekee di ko ci jamono bi nga xam ne xol bi yàqoogul di ko auditeurs defal ko fële nga xam ne mën naa dundaat bu ñu ko amalee xol boobu. xam ne ne même chrétien yi pape bi affaire greffage boobu ñu def ko compte ndax nee na consommé doomu aadama la te araamal nañu lekk bi. ndax mu ngi ci biir yaram moo tax mu ne science am na ay nit yoo xam ne sharia daf ko fa yemale waaye nag science boo xam ne bépp sàcc bi moom muy science muy technologie boo xam ne nii day jëriñ doomu aadama bi wala muy mu ko suturaal wala mu yokk suturaal ndaam te du xob sutura benn doomu aadama tax ñu nga al al xablu xob suñu laayu daal ma daal ci sax bàmmeel sax dañ ne xawus la ci kaw bi ci biir kenn waru ci dox ndax teral doomu aadama donc bu fekkee ne ñu ngi sawet doomu aadama yi xotti nañu orleen beneen doomu aadama li ñu wax tasriya si këyit mu dee nga xotti xotti bopp bi ba muy lañ ngeen ko étudier di seet fu jàngoro yi jaar ak na muy évoluer ci biir ak lan ci nit ki mooy élément yi jàngoro yi soxla di ko lekk pour yu bëri yi loolu day nekk loo xam ne xëy na kuñ ko def sa bopp sax du la neex am na ay njëriñ njëriñ yi moo di xam-xam biñ ci jëlee bu ëllëgee ñu mën cee sowee di muy dund di muy ji loo xam ne bu ñu xamul woon loolu dañ ko mën lan mooy xalaatu kon xam-xam xam-xamu islam ci loolu am na koo xam ne jigéen la woon dafa ëmboon ci jamono imam Malik bu faatoo wóor na doom bi faatoo bu ndax dañ ko ko faat ci def laaj imam Malik waaw dañu def situation bi ndax dañu xotti yéen nit ki génne kii solo ko wala dañ koy suulaale mu dee te mu ngi dund wala boog li ñuy def mu ne suñ ko mënee jaaree ci kër ba nga xam ne mooy yoon dañ ko fa jaar ñu dem xaw ma dañoo tàyyee xaw ma dañ ko xool ba ma jaaree ñu xotti lii di jigéen bi génn xale bi xale bi di dund ba mag jàpp waxtu wu nekk imam Malik ne ko asalaamaaleykum yaa man qatala bi imam Malik ne ko waaleykum salaam yaa man qatala ka sunnat wa ahlaka bidaa asalaamaaleykum maa ngi nuyoo bu ma rayoon mu ne ko aleykum salaam yow mi nga xam ne sunna rey na la bidaa dundal imam Malik jàpp na kon loolu muy bidaa xol bi ñu ci dindi lii waaw ndax l'islam moom ndax acte yi dafay lu indi yàlla wala am na si lu mën a sotti ko ci kër maslaha nit ñi gannaaw dina moom ñaari xaaj la xaaj bi nga xam ne mooy li ñuy wax métaphysique li jëm ëllëg jëm ci yàlla ak jëm ci malaaka yooyu na mu koy gëmee du changé mukk ba nga adduna dikki waaye nag xaaj bi nga xam ne mooy dara la ko araamal topp nit ñi kooku moom gën a sotti ko ci kenn nit ñi ñu ngi sotti ko Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu ne taxdisu linnaas ahkaam bi qadri ma ahdas aqdiya wa ahkaam bi qadri ma ahdas min al-hudud buñ duggee ci détails yooyu dana yaatu li nga xam ne dañ ko li ñuy araam ba yaatu ñu daga na ko léegi nag ñu ñu ñëwaat tey ñu formé ko ci xam nañu élément yi li ñuy tenir compte mooy war na doomu aadama kenn war ko xeet li beneen côté bi mooy li soree ay dund am na ñëw fan nag la soree am maye bi mu yem ko fan la maye bu bari fa am loolu dafa laaj bu ñu daje nañu woo médecin yi ñu wax ay médecin ñu fekk ko xamal leen bi si nekk jaar jaar ba muy dem conseil ñoom nag ñu daal di mën a àttee àttee na ci daal loolu li nga xam ne nag jullit ñuy retard yi ñu def ndax am ay cause yu bari yoo xam ne moo tax jullit ñuy tardé benn islam mu ngi juddoo Njaay suñu tuddee léegi Arabie Saoudite Makka Medina ak dëkk yu benn foofu xam nga ne désert la bi ñu gisee du pétrole dafa nekk ko ñu fa dëkkoon amuñu dara dañuy sàmm bi jur gi fii ba ji dañuy mat di ñàkk ludul yaxal ko maanaam jënd ak jaay am benn xur kese mu koy ñu leen ko béy waa ma dina yoom am nañu ay tàggat la am ay montagne yoo xam ne dana aar te dem ba xadara moom sooba ji xadaar ci suuf gis nga am jaar ci yoon woo xam ne mu ngi ba mu jógee bilaadul arab Turquie jaar Égypte Égypte xam ne bu ñu wër nii wax boobu dégg ak la ñoom te wax rek lañ koy kon saxaara bi ñëw ba marat jaar bi jógee fii jaar Tunisie ak Algérie ñu marat parce que dañu naan ñu ren dugal nañu ci islam di xare foofu leen di sangoo ci Océan Atlantique jamono yooyu ñu wax ba Moussa bi ñu fay am mawlaam boo xam ne moo ci taarix ibn Ziyad taarix boobu jabalu taarix mooy étoile Soubra étoile Soubra Sarr moom lañ ko jabale mooy moo moo xeex ci Espagne bi ba moom de digg France booba France bi tuddee la Gaule ba moom ñu grande partie Charles Martel moo dajale un pays bépp armée yëpp ñu xeex parce que boobu jullit ñi na xool ak seen bopp ndax moom lañu adduna bi alal ji dugg seen loxo xamante ne dañoo xam ne ñu ko sàngal xeexal ci biir islam dimbalee ci biir islam tubaab yi ci commandement wu Charles Martel dal di Abdourahmane mi nga xam ne moo jiite xale yi ñu Charles Martel gañe leen ñu dellu gannaaw waaye ba tey nag tubaab yi topp ñu leen ndax boobu dañu ne si mucc si leen xam waaye xam nañu buntu ñu jëm ci moom parce que ñun ñëwee doon xare ci jullit ñu ngi ci des nag fekk noos ak dund jullit ñi tàmbalee foofa dellu gannaaw dafa mel ne que garab moom ak bu mel ne que tool garab day doon boo xam day màgg di màgg ba yàgg muy tóor tóor di mel ni di mel ni ay at at at at di mel ni yàgg mu ràgg nag ndax bu seetee égyptiens yi daanaka ñoo njëkk a ji ci lépp ci xam-xam ak mën-mën ak léegi technologie ak science yëpp bi ñu ko wet ci jàng ci ñoom ba man Égypte daanaka dafa dal ñu xaw a dellu gannaaw maanaam ci ci dafa ñu ne ñu ne ci la ñu ne garab yi tamit ci la rome yi jëm laa ko yow ñu ne ñu lewe rome yi ñoo ci ñu lewe te en ci ñu ñëpp ñu di jàngal ci ñu jëlee xam nga ñu bëri jullit ñi après fay ci paak science ci ci dara ko ko ma ma mo tuddee xaw ko xaw ko ñoo am xam yëpp ci ñoom da ko defee ñu jëlee ñu mo ñu mo mo ci waaye ko ñu ci ñu européen yi ñoo ñu mo ñoom gannaaw bi ñu jëlee ci rom yi te européen yi tamit ñu leen rëdd mooy américain yi xamul ndax bu ëllëgee africain yi ñu leen rëdd bu ñu seetee ko ci islam bi bi mu accès ci nga xam ne rek dundal bi maanaam am na ne mbay am na suuf naturel am lépp yàlla dafa dogal ñu wóor ñu dugg ci islam Charles Martel wàññi Abdourahmane bi ñu nekk ci ci Espagne ko doxal ci am nekk na ñaari yoon ñetti yoon na ngeen defee ba espagnol yi génne leen baaxal ak portugais yi dellu moom seen bopp ñoom itam nga xam ne kon islam ci la jaar mooy dernier bi ak ñi nga xam ne ñooy ceeb moom lay def bi ñu jógee ci loolu ñaar leneen am leneen moo di bépp état bépp nation boo xam ne natt na beneen nation ba coloniser ko daf koy jàngal la mu xamoon ci ñu ko yëngati ko bàyyi ko tubaab bi suñu mbokk yi ne ñoom jëf ñu noonu ñoom bi ñu mën notee dañu ñëw gërëmal xam ñu xam-xam tax suñu diggante ñëpp ñu yëkkati ñëpp jox na jaam ba xaw moom na kon nag ñu ngi seen mbokk yooyu am nañu tax ñu xas ñu ñun dañ koy jàpp ne maam ñu ko amal ñu leen koy way sukkar leen liggéey liggéey yu nekk daf leen ñu comme ay bàyyi moom amuñu sax ay tur amuñu sant amuñu bàyyi ndey comme jur gi daal comme jur gi kon bi nga xam ne ñu ngi leen war a niteel daf leen ñu doomu aadama am ay cartante am ay état civil ay fas la ñu jóge France dem ñu leen sàkkal ay tur di leen ci turu ngelaw yee turu jantat dañ lay turu doxal turu suuf ak loo jot rek ba tur yooyu def leen ba ci ci wax ñu leen di jàll ci ci ñu jàll ci ci booba la ñu commencé am état booba ñu tudd booba ñu nekk doomu aadama waaye ba léegi bàyyi wu ñu dal dal ñoom nag ñu tuuba te ñoo ci réew yi ñoo def bi ci amee defet yoo xam ne gannaaw ñoom dafa contre système tubaab yi nga xam ne ñoo gën a avancé ndax boo nit ñi dëgg kenn du la mën a déglu moralement da nga naan rek yëngu bi yàllaa ko jëlee mu am adduna waaye xeet naa ko dafa sobe la bu dee dem safara du dara ñoom nag dañoo bëgg bu ñu la dominé bu ñu la dominé militairement politiquement moralement intellectuellement spirituellement loolu ñu bëgg moom jël ci kenn loolu nag lañu mën a dul ci nit moo wax ñuy xeet bi daal di ko rek ci yamale bu fekkoon ne Sénégal mën na ñu ko defee mat ci yàlla bi bëgg ñu ngi loolu jeex na loolu tey dañuy jugee ak ñu ak ci la ñu la ñu doon li ñuy rawal mooy tey yu ak ñu wax na yu ak ñu yooyu ñu am ci waxtaan waaye bu ko yoroon ñu ñoom daal tax léegi ci nit ñi ñoom ñoom ñu daal di sax ndax yéen a ngi ci boppam dafa ñëwoon parce que nag da ngeen di ñuy ñëw ndagal ñaar xeetu yu woorante ñëw tukki leen fekk leen ñu dem xanaa boobu da ngeen di yàlla bi boobu da ngeen di ñëw mu ne ci nit ñi waaye da ngeen di yëmbale yëmbale boo ko doon ñoom ñu daal di toog boole waaye parce que maa ngi leen di gën a gën a gàttal ñu ngi gàttal maa ngi maa ngi leen di dama ci naan xam dama caaxaan dama nekk waaye lu baax la loolu laa la ko Thank you. benn benn question laa jël bu ma xamee liggéey bu ma xamee bu ma jógee bu ma kenn toogal. waaw. dëgg la. liggéey bi maa ngi leen di liggéey bi ngeen di def parce que liggéey bu ma yaa ma ko ma ko xam ni yaa ma ni liggéey jigéen ak bi mu ngi ci naa xam ne yaa ma ni liggéey ci lépp liggéey ci ak liggéey ci liggéey ci liggéey فإن رجلا إذا طلب منه خمسها واضطرت شهرها وحفظت نفسها وأرضعت زوجها فتحت لها أبواب الجنة تدخل من أي ما شاء. جيت في الدنيا واحد الزوج يبقى بعد ما يقابل الناس الأكثر. وهو يرى وتبقى حفظت نفسها. طب بيجي ولا بولد booy masaala ñu ubbi ko biir ci àddina bi yëpp mooy tànn ba ko suñu digg bi kooku ñu am ko. waaye yaa xam ne ñu ko jaare am na ñu ci am na ñu ci baal ñu koy sa ci mu wax la wax nga ci ñu jëriñ na dañ ko doon jëriñ ci ñu ko ñu jëriñ mu ngi ci safara ba jëriñ ba mu jëm ba mu jëm góor gi am na ay xaq jigéen bi am na ay xaq góor gi ko wax jigéen ñi ne ko ñu leen ci dara man ne ko jox mu dara lépp lu wax moom bu ko takkaale waaye rek ko dara ne ko jox mu dëkk dëkk bi yàlla ci ko ne ko wax ne ko jàngal xara ay xaraan ne ko wax ma suuf ala suuf ala ne ko wax ay bokkam li ñu mën ci loolu bu ñu mën a bu ko defee ñu wëcc ko loolu ci lay def ci dara góor bi dañu ko def ci amé ko def ci ko tak ci dëgg bu ko faaw bu ko gannaaw bu def gannaaw loo xam ne bu ko yëgee ko xoolal xam ne bu ko